projet bi nga xam ne moom lañuy amal di ko def chaque année muy le grand bégué yi xam ko ñu koy def si réew mi di ko def bitim réew def nañ ko Sénégal def nañ ko sous région bi def nañ ko États-Unis def nañ ko Europe donc ren nak ñu war ko def fi di Dakar Arena ci Diamniadio le président de tous les Sénégalais monsieur Macky Sall nga xamanteni tay dafa ñew sanc gox bu melni ni Diamniadio dara amu fi won mu nekkon all mu ñew xotti ko Sénégalais que ni fi mën na nekk futuru Sénégal bo xamanteni tay euh lu bari xaj nañ fi ba tey ñëpp ñu ngi riir di ñëw jam ñaajo kon tey bu ñu defalee stade bu mel nii bijou bu mel nii pour man ñu daan dem ba Bercy ba France di dagg ay billet d'avion di ànd ak ay mbooloo di dem di fa jouer di bégal sunu fans yi je pense que ni tey am nañu Bercy ñun Sénégal kon je pense que ni tey bés bi euh, ñi war a jóg ñëw wane bërëb bi Pape Diouf am na ci part de responsabilité looloo waral ñun ñu taamu sunu feetu indépendance muy le 4 avril nga xamanteni ni bi tay mën naa ne ñun Sénégal ci lañu dégg dali bo déggé nak dégg dali moy mooy bi ñun ci lañu mom moom sunu bopp et que nak l'histoire retiendra ndax man pap bés bi sa yu joté muy le 4 avril euh, damay xalat lu bari kon je pense que ni lolu dañ koy santé sunu mam yi bour yi nga xamné ño fi nekkoon patriotes yi xex ba tey ñu moom suñu bopp chaque année ñu koy fete man nag ma ne bés bi du ma ko fete fenn fudul fii ci Dakar Arena kon je pense que ni tey euh, mbégte le plaisir le, ñu ñëw fii tey le 4 avril woo fi Sénégal du ma ne fan si Pape ah, mais Sénégal laay wax ndax Sénégal la xewle tey musique sénégal musique sénégalaise la ñuy dekkalaat ci son ci lumière ci woy ci xam-xamu musique ci spectacle ci enjoy ci bégé ci fête donc je pense que ni bés bobo à ah, man mom pare le le directeur bu Dakar Dem maître Moussa Diop bi ah, événement bi trois mois seeti nañ ko pour signer ak un partenariat de transport vraiment ku mën transporter événement bu toll ni màggalu Touba nga mettre ko dans de très bonnes conditions événement bu toll ni gàmmu Tiwaawan nga mettre passager dans de très bonnes conditions ak yeneen i gàmm lu mel ni tey waa Kaolack bu ñu xewlee donc je pense que ni Dakar Dem dik yoré nañu logistique bo xamné ku bëgg a ñëw dinañ la andi dinañ ko bolé ci sa billet ku bëgg ñibi aussi dinañ la xaar yóbbu la si jàmm te dara du ci am lu dul jàmm. gis ngeen ma ni ma jeexee Sénégal yéen mais Pape Diouf da jeex ma ne leen mais bien sûr parce que nag man dama gëm liggéey te dama gëm defi man maay nit nga xamante ni man maa dama gëm défi su ma nekkee ci defi du ma lekk du ma naan du ma nelaw. man maay l'homme de grands défis noonu la ma yàlla bindee euh, xam nga àdduna moom lépp yàlla sunu borom la te nag yàlla moo ne dee leen ma ñaan ma di leen may. kon maa ngi ñaan yalla mi nga ni daan may mu may ma ñu am ci ndam jaar fam daan jaar ak ñun rek wax sax duma koy di def man non la ma man déjà répété musicien ba rarement répéter. parce que tout le temps limay def rek sentir lay doon euh, le jour J inshallah rabbi si kattanu yàlla bu sénégalais yi dinañ gis lu ñu mësta gis te nag musuma leen wax lu ma deful ci musique man musuma leen wax lu ma deful ci musique mhm. su may dugg studio dama leen naan dinaa def dinaa génne loo xam ne bu génnee ñëpp ne gongo waaye nag su may waajal bés képp ku ñëw di nga dégg loo mës dégg waaw maa la wax pour wax leen ni que rek en grosso modo jëmukaay jumtukaay yi ñu soxla yëpp vraiment am nañ ko ñu ngi siy liggéey parce que Sénégal lañu bëgg ñu contane Sénégal mo ñu ñor ay sénégalais lañu et que nak musique lañu am muy suñu culture